Serigne Ndiassé Cissé Serigne Ndiassé Cissé mi ngi ganee àdduna ci dëkk bu ñuy wax Afe Ndiogo mi ngi ci njàmbur ci région de Louga Serigne Ndiassé Cissé doom la ci soxna Salla Jaxate ak kii di Serigne Ahmadou Mokhtar Cissé bi matee dal lii di jàng ci waajuram la dale lii di alxuraanul karim ba géeju fa ba tàmbalee sax jàngale alxuraanul karim ca daaray waajuram wa di sëriñ moxtaar siise ba nekk ci ku ko géeju lool mokkal ko loolit ba yéem sax tund wa sëriñ njaase siise foboon alxuraan nag def ko lii di métier ba tax na daana def fu mu bindeeb kaamilub alxuraan jaayee ko ci ñetti téeméeri dërëmi ngurdu su paree mu jël ko di ko dundee balaa ñetti téeméeri dërëmi ngurdu yaa jeex mu dem bindaat baneen kaamil noonu ba giseek sëriñ tuubaa seexul xaddim kon ma wax leen li waral sëriñ Ndiassou Cissé giseeg sëriñ tuubaa seexul xaddim dafa am bis ci tuubaa ci dëkk bu sell bi sëriñ Ndiassou Cissé ñëwoon fi seet si sëriñ tuuba seexul xaddim ginnaaw bu ñu nuyoo ba sëriñ tuubaa laaj ko fu mu bàyyi ko mu ne ko ci njàmbur ci dëkk bu ñuy wax afe njóggo seexul xaddim laaj ko naka nga tudd mu ne ko ibrahima siise laa tudd waaye ñu bari biraayim siise lañ may woowe seexul xadim ne ko noo def ak téere bi mu ne ko ku ko mokkal la te miin ko lool seexul xadim ne ko ana looy liggéeye mu ne ko alxuraanul karim lay liggéeye te damay def saa su ma bindeeb téere jaayee ko ñetti téeméeri dërëmi ngurdu ci lay dund balaa jeex ma bindaat baneen kaamil jaay ko sëriñ tuuba seexul xaddim ne ko sëriñ njaase siise man ngaa dem te bu ñu jullee jee ba pare nga ñëw nag taril ma lii di alxuraanul karim sëriñ njaase siise dem ca jataay ba bi ñu jullee jee ba noppi mu ñëw taril alxuraanul karim lii di sëriñ tuuba seexul xaddim bi jeex tàkk ci njàng mu neex te wér sëriñ tuuba seexul xaddim ne ko alxuraan de mokkal nga ko lool miin nga ko lool waaye dafa am lii di boroom te man mii man maay boroom ak lii di addis ak njariñul alxuraanul karim waaye nag bindal ma ab kaamilub alxuraan te indil ma ko sëriñ njaase siise daal di dellu nag ca dëkkub cosaanam ba bindub kaamil ba mu egg ñëwaat yitaar ko sëriñ tuubaa seexul xadim seexul xadim di ko laaj kan moo ko gën a jege ci freem yi mu ne ko sa taalibe bi ñuy wax seex sàmba jóob saam seexul xadim jox ko kaamilub alxuraan ba ak lii di ab bataaxal ne ko boo demee nga jox ko seex sàmba jóob saam te nee ko mu teral lii di alxuraanul karim bi sëriñ njaase siise seex Masamba Diop Sam jox ko lii di bataaxal bi ko Serigne Touba Seexul Xaddim joxoon ak kaamilub alxuraan ba ne ko ku baax ki nee na nga teral lii di alxuraanul karim seex masamba jóob saam jóg ubbi ay gaalam dindi ci juróomi téeméeri dërëmi ngur du jox ko delloowaat ko lii di kaamilub alxuraan ba sëriñ njaase siise delsiwaat ci sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko xamal ne dem naa ci cheikh ibrahima jóob sam jox na ma juróomi téeméeri dërëmi ngurdu delloowaat ma lii di kaamilub alxuraan bi seexul xaddiim ne ko dama la doon firndeel rek ne alxuraanul xanaa kon gis nga njariñ li ndax daa nga bind kaamilub alxuraan am ci ñetti téeméeri dërëmi ngurdu akub coona te tey ji bind nga kaamilub alxuraan am ci juróomi téeméeri dërëmi ngurdu amaalewaat ci kaamil ba nga bindoon dama lay wax rek ne wala dama doon wan rek ne lii di alxuraanul karim man mii man maay boroom kon lii mooy giseb sëriñ ibrahima siise mii ñuy wax sëriñ njaase siise di waajuru sëriñ moor mbay siise giseem bu njëkk ak sëriñ tuubaa seexul xadim liitim mooy istuwaar ba ca xewoon keroog ba ñu gisee booba nag sëriñ tuubaa seexul ginnaaw bi nag ci atu 1895 sëriñ tuuba seexul xaddim am fi takk-takk ak tubaab yi ñu yóbbu ko ci réew mi di gabon mu def fa juróom-ñaari weer juróom-ñaari at yu teg ay fan ñibbisiwaat amaat fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi dugg ci yóbbu waat ko fii di gànnaar moom fa juróomi at yu teg ginnaaw bi mu ñibbisiwaat ñu def ko résidence surveillée ca yéen ginnaaw bi nag la ñëw njaareem bi sëriñ tuuba seexul xaddim ñëwee njaareem ci atu 1912 ci atu 1913 nag la cheikh ibrahima siise mi sëriñ tuuba seexul xaddim duppee woon ko sëriñ njaase siise ñëwaat ziyaare ko ci njaareem sëriñ tuuba seexul xaddim téye ko foofu ci njaareem ngir mu nekk fa di bind lii di alxuraanul karim di ko ko yit ak di jàngale ca daaray alxuraan jafa nekkoon kon fii sëriñ moor mbay siise dëkke moo nekkoon kër waajuram di sëriñ njaase siise ndax foofu la ko seexul xaddim dëloon kon lii moo indiwaat sëriñ njaase siise njaareem ngir ziyaare ci sëriñ tuuba téye foofu ci njaareem sëriñ njaaña siise wéy nag di liggéeyal sëriñ tuuba seexul xaddim ci mbindum alxuraan ak daaray alxuraan ji ba ba ci atum 1927 sëriñ tuuba seexul xaddim ñibbi si tuuba cheikh mamadul mustapha mbàkke nekk xalifab sëriñ tuuba seexul xaddim sëriñ njaase siise wékku ci moom di ko defal lam daa defal waajuram wa di sëriñ tuuba seexul xaddim ginnaaw cheikh mamadul mustapha mbàkke bu mu génnee àdduna ci atum 1945 ay weer lañ ca tekk 1946 nag ci xilaaf ak cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Ndiasse Cissé génn àdduna ci atu 1946 ñu denc ko ci armeer yu mag yi nekk njaareem benn doomu soxna Sala Jaxate ba ak kii di Serigne Ahmadou Mokhtar Cissé génn àdduna ci njaareem ñu denc ko ci njaareem taawam ba di Serigne moor Mbay Cissé wuutu ko ci xilaafa gi toogit toogaayam ginnaaw bu mu génnee àdduna moom Serigne Ndiasse Cissé am na bis nag buñ koy fàttaliku mook doomam ji di sëriñ moor mbay siise ci njaareem gi nga xam ni fa la génne àdduna bés bi mooy juróom benn fan ci weeru koor di bis bi sëriñ moor mbay siise génne àdduna bis boobu lañ ko booleeg waajuram di leen fàttaliku bu njëkk ci atum 1988 ba ci année 2000 mili daan nañ ko woote di ko yëgle ba ñépp xam ne bisub sëriñ Njaase Siise ak sëriñ Moor Mbay Siise ñëw na ginnaaw bi nag la ci njaboot gi jële bisub yëgle bi jële ko nag di ko màggal rek noonu yemale ko nag ci njàngum alxuraan ak lii di salaatu ala nabi ngir jagleel ko waajur wa ak doomam ja di sëriñ Njaase Siise ka waajuram wa tuddee woon Cheikh Ibrahima Siise dëkkam daa ko wooye a siise te seexul xaddiim daa ko woowe njaase siise jàngalekatub alxuraanub seexul xaddiim ba ak bindkatub alxuraanub seexul xaddiim ba yàlla nañu ko yàlla fayal ci dooley alxuraanul karim ji mu daa bindal sëriñ tuubaa seexul xaddiim waajuru sëriñ moor mbay siise sëriñ moor mbay siise moomu sax mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bu sell bi di njaareem ci kër waajuram di kër googu mu moom di kër sëriñ moor mbay siise doomu sëriñ sëriñ njaase siise ak soxna mareema gajaga sëriñ moor mbay siise am na kenn ku jigéen ku mbokkal waajur wu jigéen waaye dafa teel a làqu moom soxna soosu kii di sëriñ moor mbay siise bi matee dal alxuraanul karim waajuram di sëriñ njaase siise moo ko dalal alxuraanul karim jàngal ko alxuraanul karim ginnaaw bi nag dem na ca nijaayam ju ñuy wax sëriñ Alioune Gajaga fa la mokkale lii di alxuraanul karim sëriñ Alioune Gajaga mii sax bokkoon na ci ñi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daaray kaamilu njaareem ji ginnaaw sëriñ Alioune Gadiaga mi nijaayam sëriñ Ndiasse Cissé jël na sëriñ moor mbay Cissé jox ko sëriñ Mouhamadou dem bu fa la jànge lii di xam-xam ba géeju fa lool ci wàllu xam-xam ginnaaw bi nag la ñibbisi ci ëttub waajuram di sëriñ njaase siise ànd ak sëriñ njaase siise mi waajuram ci ndigal li ko sëriñ tuubaa seexul xaddiim joxoon muy jàngale ak bind lii di alxuraanul karim mu nekk ci ginnaaw waajuram wa di jàngale alxuraanul karim bi waajuram wi génnee àdduna ci atum 1946 la toog nag toogaayu waajuram di sëriñ njaase siise bootu nag ci ginnaaw xalifab sëriñ tuubaa bi fi nekk di cheikh muhammadul faadal mbàkke sëriñ moor mbay siise nekk na ku yéeme kiimaane yoonu murit gépp bàyyi xel sëriñ moor mbay siise soobu nag ci lii di njàngaleeb alxuraan ndax mooy ndigal li mu jot ci ku baax ki di sëriñ tuuba seexul xaddiim wala ci njabootu sëriñ tuuba seexul xaddiim ndax waajuram jàngaleeb alxuraan moo taxoon sëriñ tuuba seexul xaddiim del ko njaareem jàngal na ñu takkoo takku ci yoonu murit wi ñu ràññee ci rek kii di sëriñ muntaqa mbàkke ibnu cheikh muhammadul bashir mbàkke jaar na ci kër googu ci loxoy sëriñ moor mbay siise ci wàllu njàngum njàngum alxuraan boole ko yenn ci sëtti seex su mag si toppoon sëriñ tuuba seexul xaddim ñu ràññee ci sëriñ daam jóob moom cheikh mouhamadul faadal mbàkke sëriñ saaliw ture mi toogal xalifa général des mourides ci Thiès ak doomu sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke bi di sëriñ mustapha saalihu mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ñu kenn xamul nu mu toll ñoo xam ne ni jaar nañ ci loxo yi sëriñ moor mbay siise mi sëriñ moor mbay siise nekkoon na itam ku am relation ak lii di yoonu murit xalifab sëriñ tuuba seexul xaddim bi fi nekkoon di cheikh abdoulahat mbàkke daana ko ziyaare ji ci tuuba ginnaaw bi itam kii di soxna may mbàkke bintu seexul xaddim ak sëñ abdourahman mbàkke boroom dër bi wala réem la woon wu kenn dut nattable sëriñ moor mbay siise ak sëriñ abdourahman mbàkke borom dër bi yeneen tarixa yi itim sëriñ moor mbay siise ku leen bàyyi woon xel la sëriñ abdul aziz si malik dabaax musta ñëw tuubaa te ñëwul jaar ci sëriñ moor mbay siise cheikh tidiane si mi toog toogaayu maam cheikh el hadji malik si jamono ji ñëw na ay yoon ci dëkk bii di njaareem ngir seet si sëriñ moor mbay siise ak yeneen ak yeneeni tarixa yi ku xamoon jamono la ku méngoo woon ak jamono la ba tax na yenn vedette yi fi nekkoon wala ñu siiw ñu fi nekkoon soo masaa dem néeg sëriñ moor Mbay Cissé ñaare danga fa fekk seen photo moo xam footballeur bu mag la moo xam musicien bu mag la moo xam lii di mbërum làmb bu mag wala politicien bu mag rajo itim daana ko déglu ba bëccëg ndax daana wax ne lii di bëre moom dana koy déglu ndax yoonu murit làmb la day bañ ñi mu séqal làmb ji ñu daan ko moo tax muy déglu lii di bëre football itim daana wax ne dana football la dana fexe itam ba ñi mu suqal terrain bi itam duñ ko man ci football bi kon moom noonu la gisee woon lii di jamono ñi ñu bokkulul diine itam muy suñ mbokku chrétiens yi bàyyi woon na leen xel ci misaal daal kii di sëriñ moor Mbay Siise xeebalul woon kenn la nga nekk te lu waay masaa nekk itam soo ñëwee mu jàppale la ca di la wax ne gàcce nga laama noonu la kii di sëriñ moor Mbay Siise nekkoon na nag ku kiimaane firnde bi rek mooy doomu président de la république bi fi nekkoon di Léopold Sédar Senghor bi mu génnee lii di àdduna Senghor soxna May Mbàkke bintu Seexul Xadim ak Sëriñ Moor Mbay Siise la bindoon lettre kenn ku ne mu la yëgal ne bu sañoon daal doomam ji di Polat Senghor bëgg na ko lool bu sañoon nag ñu yóbbul ko lii di àjjana doomam jooju soxna May Mbàkke bintu Seexul Xadim moo taale otoom Tuuba ba njaareem ci kër Sëriñ Moor Mbay Siise di ko xamal ne Léopold Sédar Senghor mi jiite réew mi nee na doomam ji di Polat Senghor dafa bëggoon dugalal ko ko lii di àjjana rawatina yow mii nag la ko diis ndax leetar baa ngi nii sëriñ moor mbay siise na soxna may mbàkke bintu seexul xaddim duma ko diis suñu boroom ndax la suñu boroom wax wax na ko ba noppi duma ko diisit kii di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax la suñ boroom wax ba pare ànd na caa moom waaye sëriñ tuubaa seexul xaddim laa koy diis ndax moom am na ay mbooyi àjjana yu mu doyewul dara ay fan lañ ca teg mu waxaat soxna may mbàkke bintu seexul xaddim Xaadim ne ko pëleeg Senghor ma nga ajjana a ko diisoon nangul na ma ko kon lii moom bokk na ci kiimaan yi sëriñ moor Mbay Siise def ba tey sëriñ Mor Mbay Siise ku ko bëgg a xam laaj ko président de la république bi fi nekkoon di Abdou juuf moom itam ku xamoon kii di sëriñ moor Mbay Siise la ndax daana jaaxle wala réew mi metti lool ci opposition beeg moom mu yónnee ci soxna May Mbàkke bintu Seexul Xaadim mu demal ko ci sëriñ Mor Mbay Siise ndax sëriñ koo xam ne ni daal ku fekke jamonoom wala nga xam ko xam ne ku yéemale woon ku bàyyi woon xel lii di réew mi te boroom xaas la woon baneen bi itam daana wax ak njabootam ne leen duma seex nag bu ay taalibey topp wala seex bu wuti taalibe di bayaka laaji àddiya waaye bépp seex boo xam ne nii def nga erreur wala nga def njuumte man sëriñ moor mbay siise mën na laa jubbanti kon seex buy jubbanti seex la daana ko wax lii du njabootam dund na itam ndax dafa am bis mu ne ndakaaru daal dana fa dem seeti ko ndax seetlu na ne ñaari dëkk yi daal ñàkk fa dem wóorut muy tuuba ak ndakaaru ndax nee na xéewal yi jóge ci suñu boroom di ñëw ci askan wi ci wàllu yiw ak barke ci dëkk bii di Touba lay wàcc kon na dem Touba seeti ko beneen bi muy koom mi jóge ci àdduna di wàcc ci réew mii di senegalitim ci ndakaaru lay wàcc ndax fa la aéroport bi nekk fa la port bi nekk fa la gaar bu mag bi nekk mu jàpp bis ñu yóbbu ko lii di ndakaaru bërëb yu mag yi nekk ndakaaru fu ñu jaarele ko fa ne ko lii mooy port bi lii mooy aéroport fii la président Senghor nekk mooy pale bi fii mooy marché Sandaga fii mooy yeneen ak yeneeni bërëb yu mag yi mu dikkaat ñëwaat ci dëkk bu sell bii di njaareem nit itim daana ñëw ci sëriñ Mor Mbay Siise ne ko dama bëgg a koo njëkk a dajee rek jébbulul ci moom ci kilifa yi bu fekkoon ne daal man sëriñ moor mbay siise danaa am ay taalibe ma ne ñaar rek laa ci am muy soxna aminata dem mi ma sëriñ ma dem jébbal ak ki nga xam ne nii moom mooy sëriñ mbay ngiraan mi nga xam ne nii bi muy tuut tànk lañ ma ko jox teewul nag amoon na ay taalibe yu ko yaakaar ca biir kër ga waaye lii moom daana ko wax ci làmmiñam njabootug sëriñ tubaa seexul xaddi ngiitim réew mi daana metti lool ay nit ñëw ci ñoom ñaanu leen ñu ne sëriñ moor mbay siise mu ñaanal la ndax boroom xaas la woon moom sëriñ moor mbay siise mi ngi génn àdduna bisub gaawu juróom benn fan ci biir weeru koor ci atum 1408 ci gàddaay gi gaawu juróom benn fani koor ci atum 1408 ci gàddaay gi ci dëkk boobu di njaareem dëppoo muy samedi 23 avril 1988 samedi 23 avril 1988 ñu wuufal ko ci ginnaaw waajuram wa di sëriñ njaase siise ci armeel yu mag yi nekk nekk njaareem ci xilaafak cheikh abdoulahat mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ mayor mbay siise sëriñ basiiru siise moo ko wuutu ci atum 1988 ba atum 2010 ñaareelu xalifa sëriñ moor mbay siise mooy sëriñ abdoulahat siise moo ko wuutu ci atum 2010 ba jamono ji ñuy wax ak yéen sëriñ njaase siise benn doomub sala jaxate la woon ak kii di sëriñ Makhtar Cissé sëriñ moor mbay Cissé itam benn doomub sëriñ Ndiassé Cissé la ak soxna Mariama Gadiaga am na bis buñ koy fàttaliku moom sëriñ Mor Mbaye Cissé moog waa juróom sëriñ Ndiassé Cissé muy juróom benni fan ci weeru koor gi mu génnee àdduna ñu koy amale ci njaareem kon sëñ Abdou Lahad Cissé moo toog toogaayu maamam ak waa waajuram yàlla nañu yàlla fayal doomu sëriñ Ndiassé Cissé ba di sëriñ moor mbay Cissé te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi rawatina xalifaam bi di Cheikh Abdou Lahad Cissé ak mbooleem sëti sëriñ moor Mbay Cissé yépp ak njabootu sëriñ moor Mbay Cissé gépp te teg loxo taalibeem yim fi bàyyi yépp ak képp kuy soppeeb sëriñ moor Mbay Cissé